teraanga ji ko bëgg ko ni mu ji defare yow wëral nga ba fule ko ko gis ne fii rek la am ku bëgg ndam doon si nitam ku bëgg ndam doon ay waayu ku bëgg ndam doon si nitam moom nitam dafay dëkk sant la yaay sunu ndam cuun ku ne ci ñun laata mu ñëw rag la woon loolu gu sew ku ne ci ñun laata mu ñëw rag la woon loolu gu sew ku ne ci ñun laata mu ñëw rag la woon loolu gu sew tey nga yaa fal nu ba nu defi kuy cuun yaa mën sënit ku ne ci ñun laata mu ñëw rag la woon loolu gu sew ku ne ci ñun laata te nga yaa fal nu ba nu def kuy cuub ay way ku ne ci ñun laata mu ñëw rag la woon lool ku ne ci ñun laata mu ñëw rag la woon lool te nga yaa fal nu ba nu def kuy cuub yaa man si nit ku mata am yow soxna nga may ku mata am yow soxna ku mata am yow soxna nga may ku mata am yow soxna nga may lépp lu baax yaa nu ko may man bilay danaa la fi way cuur yaa man nu su xoolal ma kër yi moo nu dagal te oto yaa ngi ñoo ngi daw xoolal ma kër yi moo nu dagal turna oto yaa ngi ñoo ngi daw xoolal ma kër yi moo nu dagal ee oto yaa ngi ñoo ngi daw xoolal ma kër yi moo nu dagal te oto yaa ngi

soxna yu baax lool te mën a sëy yaa ko am soxna yu baax lool te mën a sëy yaa ko am ana soxna yi soxna yu baax lool te mën a te ana gane te mën a soxna yu baax lool te mën a sëy soxna yu baax lool te mën a sëy soxna yu baax lool te mën a sëy yaa ko am ne yaa jar góor ñi fonki soxna teral leen ñu xoolal ma kër yi ñu xoolal ma kër yi xoolal ma kër yi jur oto yaa ngi noo ngi dawal mbubb yu baax yi moo ñu ko solal leen yaa man si xoolal ma kër yi moo ñu dagal te oto yaa ngi ñu xoolal ma kër yi jur oto yaa ngi xoolal ma kër yi jur oto yaa ngi xoolal ma kër yi moomu dagal te oto yaa ngi ko yu baax yi ma ko soxlal yaa ma ni sëriñ ani sëriñ bu mel ni ñun ñoo ko am kii sëriñ Sali wóolu wóolu cunu ba joxu la ruyee sëriñ bu mel ni ñun ñoo ko am ana ñi am sëriñ bee jox Sali wóolu wóolu cunu ba joxu la ruyee mel nii ñun ñoo ko am kii sëriñ bu mel nii ñun ñoo ko am kii sëriñ Saliou wóolu wóolu cun ba jox la ruye ana ñi am sëriñ mbeeto la wóolu jur ba jox la ruye di waawa nangaay ba jàll dar géej di waawa nangaay ba jàll dar géej di waawa nangaay ba jàll dar géej joo ñi am dafay daay ñëpp sëñ saali woo ñoo ko am kii ko ba jaareem ba jàll caajaay fete ko ba jaareem ba jàll caajaay yoo ni am nga fay gaay ni ko sëñ Saaliwoo ñoo ko am kii sëñ Saali wóolu wóolu tur ba dox na ruye Dakar ba biir Cees ba jàll Mbuur Géej Dakar ba biir Cees ba jàll Mbuur ah, Géej ani am nga fay gaay lépp sëñ Saali wóolu ana ñi am sëriñ Béthio la wóolu ba jox la ruye demal ba Touba jannatu maxwa demal ba Touba fa jannatu maxwa demal ba Touba jannatu maxwa ni am nga fay gaay lépp suñ saaliho sëriñ bu mel ni ñun ñoo fa am ana ñi am sëriñ Béthio la wóolu ba jox la ruye ma génn mim réew dem ba bitim réew ba am nga fay gaay lépp Sëriñ Saaliwu sëriñ bu mel ni ñun ko am kii ñoo ko am daale la woolo ma jox la ruye ni Italie ba jàll Allemagne ni Italie ani am nga fay gaay lépp Sëriñ Saaliwu sëriñ waaw waaw anda isaan sigil ganu sin beka mu mam bam bi jal ni teral nanu ni sagal nanu ay way ni teral nanu ni sagal nanu ni sigil nanu sin beeco amul moro teral nanu waaw isa sigil ganu sëñ Béthio amoon moroom